maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yàlla ngi xool bu baax. waaw ah, maa ngi xippi insuline nag mënuma xool sama bët yi daa fulu. loolu moo tax. c'est le ramadan qui m'a fait comme ça. Ah. billahi yow à cette heure ah. du bëree de mais dafa am yenn ba si kaw dóor suuf. waaw tuddee doom de. Hmm. Mhm. yaa ngi ci wér wala yaa koor gi. maa ngi si weer bi. weer bi ah. koor ma weer. ah xaw ma yaa ci weer wala yaa ci koor gi. Ah, man de daal. yaa ngi woor waaw yaa ngi ci koor gi. waaw maa ngi bi ndog jot na ci Dakar ak li wër nga ne yor sa tànn ma jël lan nga wax foofu. sa nga lu garaaw. <laughs> allahumma la ko sut. wa bi ka ak lan xarit jàppale ma. wala alan ah ku <laughs> doo ah man xam <laughs> damay laajte ni. est-ce que dañoo saa mu waxal ñu ko tamit loola waaw. waaw loola ma yéem man. ala la ko sunt. wa bi amantu ala la lan. ala la ma. ala la. kii làkk français. si Sénégal ak li wër. Ah. gaa kon alhamdulilah ndogu leen. ndogu ragal dara. alaaji makan borom ji kii ndaanaan la ci loo ne maa ngi sant bu baax a baax nga jàmm maa ngi sant bu baax di deuxième jour weeru dëkk bi yëpp tey nga san koor gi Sénégal lu ñu gëmee diine ak ñu jàmm yàlla nga ci loolu mhm. waaw Sénégal moom ko xam xam ne réewu diine la réewu lislaam la te koor wooru ngëneel la weeru promotion ndax yaakaar naa ne fukki weer ak ñaar suñ borom tànn ci benn rek muy sawru ramadan kooku weeru yàlla la ko dëgg la mhm. dëgg la Macky mais weer bi koor gi gis bu jotee yéen jeunes yi ñu bari bari dañuy faratal di julli julli gu bari lan nga wax si julli gi waaw jàkka yi boo duggee day fees ndax ku ci mel ni tey man xam naa ne du ma fen gëj naa julli àjjuma mhm. mais tey julli ci naa àjjuma ndax boo xoolee yaakaar naa quatre ans ngi ñu xaw ma cinq ans yoo xam te ni julli ma àjjuma mais tey daal julli naa àjjuma waaw quatre ans xaw ma cinq yoo xam julli ma àjjuma tey julli naa àjjuma mhm. dañuy ñaan nag suñu borom sax ñu ñun jeunesse Sénégal ci jaamu yàlla ndax yàlla moom nañ ko sax daal du weeru koor kase jàkka yi fees na jumaa yi fees na lépp fees na ndax tey man fa aw ma ma teg sama tànk sama jumaa koñ te gëj naa mel noonu mhm. makan li may laaj ci li nga xamante ne mooy ci faratay julli lu ndaw rek boo rukkoo sa om la war a wax foofu <laughs> sëñ bi <laughs> foofu <laughs> bàyyi naa ko Babacar bay ndax xam nga internet yi moom dañoo xaw a kii quoi waaw ci beneen question ba tontu ci. jonn ci Dakar ak lu ak lu ko wër nga jël tànnam ne soppeet la nga war a wax. foofu dañ naan allahu maka la suntu la ko amanu fi shir lii maa xaddam xaddam <laughs> attention xaaral yaa ngi <laughs> ki nag moo waaw waaw c'est le Sénégal daal. aytal kursi mun nga ma ko tari non weeru koor non ah mu ne nii moom naaj bi dafa tàng bëgguma ko tari ci ney wàcc sama kaw du ko def. loo ciy def la nag lan. 500000 de su ma ci jotoon fi mu toll nii. képp ku ci xaj ma war la cee dimbal rek ngir yàlla. dinaa ko def. ci barke weeru tedd bi. waaw loolu jar na kii bi weeru koor bi tey noo ko dundee tey. ah deuxième weer bi sant yàlla rek julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla yàlla yokk xéewal yëpp ubbi buntu wërsëg yi. ba lépp lu ñu bëgg rek yàlla defal ñu ko koor gi nekk ay xéewal ci ñun waaye deuxième jour bi ak premier jour bi ak nañ ko tàmbali ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilah fi mu ne nii daal moom macha allah rek. yéen jigéen ñi ngeen woor lu bari de ñu bari seen kër yi ay mbaxal ak lu ne ngeen ñuy def. ah dañuy woor fii moom dañuy woor. waaw waaw fii moom mbaxal tàkk fi dara jibu fi. Mm. woor rek jaamu yàlla moo fi am. Mm. wallaahi. imaam noot na si jàkk ji. ñu war a jël tàntan war a dog foofu. Ah? imaam bu noddee ah. ba dog jot ah. nga jël tàndarma ah. lan nga war a jàng pour lekk tàndarma bi allahumma laka sum wa aman wala risi bi asa yëfir lii war wa <laughs> ñëw te neex ah waaw waaw yéen foofu la foofu daal la suukar si daal la ñuy laaj ñu ko dina ñëw yow na ma ngi soxla ci waay bu baax waay. tur la. Ibrahima Sagne. Ibrahima Sagne waaw. di deuxième jour weeru koor. waaw deuxième jour waaw. koor bi ah xanaa gën a sant yàlla di baal ñëpp ak di balante ñëpp ak yàlla ko fekk déwén ak déwén déwén waaw ah man damaa doon séeréer nag waaw man séeréer laa de. foog la séeréer. waaw waaw laa moom vraiment. dëgg la woor. man ah wala sala moom wóoruma moom su fekkee ne yàlla dëgg rek bëgg moom wax dëgg sala man moom Baye Fall laa moom wax dëgg vraiment <laughs> waaw dama rek waaw dama jox ndogu rek moom vraiment waaw loolu moo tax ma sala moom mhm. ah ma taxaw ci ndigal boobu rek waaw parce que sama sëriñ moom Baye Fall la waaw to moom laay roy moom isa bi nii wax dëgg sala moom tëggu chef bi kenn ko ah, ma laa gis moom ore sax iba nag dégg yombul mm. waaye nga jéem kam ti lay kattan wa a ci li nga mën rek loo def ci rek moom yàlla dina xam ne yow yaa ngi jàmm waaye oh, xam nga daal. <laughs> tey bu imaam noddee nga jël tàndaram war a dog lan nga war foofu. man waaw ah, dog gën a si ba dëgg jotee. Hmm. Ah, ah xanaa génn sama uh, comme bu ma uh, uh, yoree ci ma génn def ci biir bi jënd tàndaram ma hmm. comme bu ma tasaakee nit ñi nga xamante ni moom war hmm. ah, ma jox ko moom euh, man waru ma man jox naa euh, euh, war naa jox dugub quoi. waaw ah, mais loolu foofu boo jëlee war a lekk man hmm. ah maanaam balaa ma jël il faut que moom. Hmm. comme boo xam ne da ngaa war a moom ah, ah dinaa wax ma de. Hmm. waaye ñu ma barkeelu rek. Ah, parce que lépp moom <coughs> ah bisimilah laa wax rek ah. <laughs> laay laaj ñoo ngi ni toog amaguñu sax lu ñu doge. daa mel ne fii koñu Modou Gueye la de. koñu Modou Gueye la ah mi ngi ñëw day ñëw ak day ñëw ak doole moom wax dëgg yàlla macha allah day ñëw moom. Ah, mu ngi ñëw Modou Gueye mu ngi ñëw. yàlla day ñëw billaahi wallaahi. mu ngi liggéey fii. mi ngi liggéey moom wallaahi wallaahi moom lañ koy ñaanal wallaahi dëgg la moom dëgg la moom dëgg la. métti na ah gul de métteegul de. Eh, yow yow en tant que mag nooy dundee koor. ah xanaa woor rek def yëfu mag rek waaw. booy booy dog jël tasam la. bisimilah rek laay wax jeex bisimilah rek. ndax man waaw waaw ah, mu jàllale mu jeex si wala jàpp sama njaam njàmbur. jërëjëf. <laughs> fii ngeen lido. waaw dañuy dàq koor rek. Ah. waaw. xam nga tey koor gi. koor gi ah sant yàlla rek sant yàlla bu baax dëgg yàlla comme dugg nañ ci bisimilah rahmaani rahiim yàlla nañ ci génn ci alhamdulilah rabi alamin waa tuuti tuuti rek waaw. imaam bu nu dee si ñu jël tàndarama war a looy wax. wàtte naa ko wàtte naa ko. posé ma beneen question bi. ah, ah ma posé beneen. da laa bett nafaroo da nafaroo. xam nga lu ul walaaw axat allahu samad. lam yalid walam yulat mu yàkkul la ko fu an axat. mais pourtant lii bul wala moo gën a jafelee. waaw mais xam nga rek yaa am gën a xam. <laughs> jërëjëf loone sant yàlla. naka koor gi. ñu ngi sant. noo dundee tey deuxième weeru deuxième journée bi ci weeru koor gi. ah xanaa sant rek. Mhm. waaw sant rek. waaw waaw mu ngi neex moom wax dëgg yàlla. Hmm. waaw bu baax. dana ko wor woru xale yu góor yi. comme. yor sa yor sa socc ba duggee sa néeg lekk bu suur. pour gàlle tàmbooy. tàmbooy nan la woon waaw comme ni nga ko waxee rek dugg sa néeg xaw a naan xam nga def yëfu saareen yooyu noonu. ak soween waaw mais loolu moom bàyyi nañ ko. yàgg na waaw. yaroo allah abar jumaa ji nodd na nga jëne yut sa tàndarma war a doog loo war a wax foofu. ah foofu danga naan allahumma laka sumtu. Mhm. wa bika amantu. wa ala risqika aftartu. faghfir li ma xaddamtu wa ma axartu. ne bismillah daal di dog. waaye daa xëy lan xaaral ko xaaral ko répété. non dama koo jàng. koo jàng waaw. ñu ngi delloo ziar Baye Fall. yéen a ngi si wàccaay café geeg yooyu. waa ñu ngi ci kawam nii Fall yàlla am. tey di deuxième weeru si deuxième nii ci kawam. lépp ci ndigalu Seex Mbacke Fall. suñu mm-hmm. Seex Mbacke Fall mu Assou Ndiaye. ñu ngi jégalu Baye Fall yëpp. di tuub tey jégalu weeru koor bi moom lii kase la. moom ñu ngi waaw lii lañ xam chaque année dañ koy def waaw chaque année dañ koy def waaw suñu ndigal nag kilifa ñun xëy ñu rek ñëw teg suñu café di ko def waaw moo tax kon alhamdulilahi rabbil alamin ba ngeen fi yegsee sama gars yi daal wax nañ lépp ko waa lépp rafet na faal yaaram waaw lépp rafet na ñu laajte benn question boo xamante ni tey bu imaam nodde si jaxit nga jël si tàndarma war a ndog looy wax waaw kooku moom man de Cheikh laay wax man waaw bisimilah barki siibra daal sama lépp mooma man daal loolu laay wax waaye imam beeg parce que jàkka jaa ngi nii eh. ñun bu ñu seegee dañ koy def si café geeg ci ci ci ci ci bi lépp yaatu nii lay jëm jëm jàkka ja imam bi sa saa yu julli ji nii lay jaar fii lay jaar doog dem jumaa ja non du ko yóbbaale fay dem yóbbu kaas yeeg ndogu beeg si imam bi lépp rafet na fa jaajëf mel ci wàccaay weeg yëf yi ñuy ñuy ñuy saaku déwénateeg bàlle ñu ak rek yàlla nañu yàlla boole jégal ñu teew ko ay déwéni déwén gudd fan ak nataal gaa ngi nii nag sëñ bi la jógee sëñ bi ko bawoo jël jëlee ko Touba ba fii ñu war ko ñu mu waral ñu tegal leen ko fii feeñal leen ko borom gaa ngi nii nag yegg si bilaay Baay Faal yi woori nga ñun ñun ñun ñoon suñu war a ngi nii moom jaamu yàlla te teg def def liggéey gu war ba ba ba ga ba ñëpp ñëpp e-, matal li ñu li ñu yitewoo rek barki maam Seera Fall ñun nan nan nan mat nan woote li ñu ñëwoo rek bu soobee yàlla. jaajëf jërëjëfati jërëjëf waay jërëjëf. maa la lay fay El Hadj Mouhamed borom lamb waaw ci loo ne. ci loo ne. maa ngi sant yàlla. waaw koor gi. koor gi ay nii rek. Euh, deuxième jour ci weeru koor gi. waaw deuxième jour ci weeru koor bi mais ñu sante yàlla rek xam nga wax dëgg yàlla dañuy sant yàlla ci liñ ko fekkee rek mhm. xam nga wax dëgg yàlla am na ñoo xamante ne fekkee wuñ ko. am na ñoo xamante ne ñoo génn àdduna am na ñoo xamante ne wax dëgg yàlla bi mu ñëwee eh, am nañ ay malaat te loolu yàlla wax dëgg yàlla dañuy sant suñu boroom bu baax biñ ko fekkee taal ko ah, waaw dañuy sant bu baax a baax a baax alaa jaabu mm. yaa ngi wóor kanam gi leer na de alaa <laughs> jaabu ma xam nga damay woor man man man man moom woor sama yëf la moom man damay woor eh. damay woor ba jéggi frontière waaw ah. ah, man moom damaa mën a woor moom woor moom dama ko mën depuis xale waaw man depuis ma xamee ba léegi damay woor kon woor moom daal war moom sono lu ma moom yaakaar naa. Uh-huh. Mohamed imam bu noddee nga jël tànn war a dog loolu war a war foofu. imam bu noddee. Ah, war a dog mooy allahumma laka sumtu rek. allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfir ma qaddamtu ma akhartu. bismillah damaa jàng nag. damaa jàng de. damaa dégg de abu. ñu ngi siy jaamu yàlla de di ko. gi. waaw sant yàlla rek. deuxième weeru koor bi ñu la koy dundee tey ci deuxième waaw métti na méttiwul ndax kooru weeru koor mois ramadan la mois de bénéfice la te ñu moom ay taalibe sëñ Tuubaa nañ te Tuubaa daa lu ñu digal si weeru koor gi waaw si loolu nañ fas yéene jéem ay xéwal jox waaw gaay si tànk yooyu nañ nekk bafal yi woori nga bokk kan man hmm. non ñun nañuy sant rek sant rek ndax suñ sëriñ Fall la sant sëñ Cheikh Assou Ndiaye bu sëñ Modou Moustapha Fall indu maam Seera Fall hmm. mooy suñu wasila sa kunta ba kunta nañuy dem Touba comme lu des ñi ngi fi waaw mënuñu di jéem rek. yaa ma gën a xam. ñenn ñi amuñu temps pour segg café yaa ma gën a xam. waaw ñu si jaamu yàlla daal. ñu si jaamu yàlla bu wér. mais Baye Fall bu jàkkee ji noonu du nga war a jël tàndarma war a doog la nga war a foofu. foofu noonu. Ah. ah pour ñun Baye Fall bi dee suñ côté moom. <laughs> Uh-huh. jàpp nañ ne biñ nee bisimilah rek. lépp aaju woon. dëgg la waaw. fasaale ngeen lépp daal fasaale nañ lépp. jaajëf <laughs> waaw tawfeex am leen jaam bu wér am leen bi Fall. waaw bi waaw waaw.